kilifa diine kilifa aade di am mbégte ak cofeel di ziar xalif généraux yi di sàkk ci ñoom ñaan waaye itam di leen ñaanal yàgg fi lool te wér macha allah di dem ba kër maam El aj Ndiéguène di nuyu sëriñ Maniiru Ndiéguène naan Ndiéguène bu set maam as macha allah yal na yàlla may wér te yéen bi yàlla na oyof tooy sa kaw amin yaa rabal alamin waaye di nuyu sama frère sëriñ Ousseynou Ndiéguène le porte parole macha allah di ñaanal sutra sutura macha allah fu ma ak mom mënuma ma ngi lay ñaanal digën mu seeg as ñaani ak sene bu baax baax di nuyu way juru borom kër gi macha allah sëriñ màkki njigéen naan ko njigéen mu seeg maam as ñaani ak sene bu baax a baax baax allah di nuyu sa soxna tedd sos aana sek faté mu mukk sama serigne serigne taw da di dem ci dispensaire yi hôpitaux yi clinique yi di set ñepp ñi nga xamantene ñi nga fa Euh, feebar ñu leen di ñaanal yàlla yëkkatil leen fëgg seen bopp te bañ a tëral kenn macha allah waaye di ziar koy war yi dawlu yi di leen ñaanal fa ñu nekk yal na leen gënal fii ñu jóge rawatina sama yaay ji ma tim te Adja Oumy Diop nga xamante ne moom la ñu duppee ba bi kër gi macha allah. di ko ñaanal moo ko sama baay ba ca na yàlla na leen fa yàlla wanele te yàlla yóbbu leen ca barzaq Seydina Muhammad ak mboolem neewu jullit bu ñu fa fekk mboolem neewu jullit bu leen fa fekk amiin yaa rabbal alamin waaye di jaale ñëpp ñi nga xamante ne Sénégal sax laay jaale ndax képp ku waaja sa kër macha allah ba dem fi ñu naan penku muy màkk sa bakken des fa ah loolu de bàyyi bi la ku sañoon am ko mhm. waaye nag metti na metti na metti na ndax ku waaja sa kër bàyyi sa mm. njaboot fas yéene dem ziyaare ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam fas yéene woon a dellu sa kër Ah, ñu sargal la fa ganale la fa yàlla jël la fa yàlla moom mooy yor ay programme am ah moom mooy mooy def li neex def li ko soob ñu ngi ñaanal képp ka nga xamante ne des nga fa ca bërëb ba ñii ñaan ñii ñaan yàlla nag di taaf yàlla taaf ñu sa barke ndax foofu ku nekk bëgg na faa demee waaye ku nekk bëgg na ñu denc la fa waaye di ñaanal say njaboot gi nga bàyyi ginnaaw yàlla jox leen xolu muñ yàlla euh, musal la ci bugulum bàmmeel yàlla macha allah yóbbu la ca si amin yaa rabbal alamin waaye di dem ba ci euh, prison yi ñi nga xamante ne dañ def erreur judiciaire ñu ngi leen di ñaanal yàlla fa gis génne leen fa nga xamante ne fa la ñu nekk mu delloo si leen te la nga xamante ne moom la ñu defoon yàlla buñ ko defati ndax mbaam gàtt na waaye ci jur gi lañ bokk ñooñ ci société bi lañ bokk président ñu ngi lay ñaan ngay ñuy àtte maanaam ñi nga xamante ne day am ñoo nga xamante ne sax dañuy dem tëdd fa trois ans fekk 6 mois dong la ñu waroon a tëdd kon nañ leen di gëstu surtout suñu mbokku jigéen ya fa nekk ndax jigéen amul doole te ci def rek la dëkk. yal nañu yàlla may sutura Sénégal yal na fi jàmm yàgg yal na fi jàmm yàgg. fenkoo sama ndeyjoor ki nga xamante ne macha allah kenn doot ko présenté kenn muy sama. collègue bi di Baye Bile nga xam ne chaque jour ñooy ànd partage doo émission yi nan la Baye Bile bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Fatou ñu ngi lay sant bu baax a baax si dalal bi nga ñu dellu duñu ñu dalal. Euh, si émission bi nga xam ni ñu ngi ko tuddee Kër yaa ummi. te lu dul xam-xam ak ngëneel du fi génn. ñi nga xam ni ñoom lañu ñu war a nuyu. mooy di jël nuyo bi du ko teg ci loxo PDG NG Ndiéguène. bi nga xam ni eh, vraiment li mu initié rafet na. am lu toll nii nga initié ko pour yee doomu aadama yi dimbali doomu aadama yi won leen lu ees. loolu moom dañ ko si sant di ko ci gërëm. jël suñu nuyoo di ko teg ci loxoom mu yeggal ñu ko ci xalifa bi mhm. sëñ Muniru Njëgën mhm. njëgën ñu ngi lay siyaare bu baax mhm. waaye bu indi nuyoo soxna Faatu nuyu dafay mel ni lépp mat na di képp koo xam ne nag téléspectateur nga ñu mbokki bopp di nuyu samay xaritu bopp di wax ne Fatou asalaamaaleykum wa rahmatulah kaddu gi. waaleykum salaam wa rahmatulah bàyyi allah mel na ne nuyoo bi mat na macha allah waaye kooku dama ko mës a fàtte sama président directeur général muy NG Njëgën Njëgën mu sekk maam Asapatek Demba Yoro kooku moom lu waaye wax ci moom rek am nga loo ci desal parce que xale la mais xale bu loxoom set la macha allah li ma koy ñaanal rek mooy yàlla may ko wér rek gu ànd ak gudd fan waaye nag di nuyu suñu première dame Marie NG Njëgën mi nga xamante ne day toog. Paris di ñu seetaan waaye duma fàtte mukk suñu deuxième dame Chacha Ndiéguène macha allah ziar naa leen bu baax di nuyu ki nga xamante ne saa yu ñëwulee rek ñu am vide muy asu euh, bajaan mi nga xamante ne macha allah jamono ji rek moo ko jàpp ñu ngi koy nuyu de passage ah di ko ziar bu baax a baax a baax bay bi suñu euh, temu tey wàccaay tabaski bi la mm-hmm. mel ni dañu dëgmal si li nga xamante ne macha allah ñi dul jullit sax ñu koy préparé mm-hmm. ndax catholique yi sax boo demee ñu ne tabaski jour sàngam la ñoom dañu dem ba mel ne tey dañ dañuy dem ba bëgg a wàll si ci suñu diinee loolu la suñu borom bi dogal ndax bari na ñoo nga xamante ne tey du ñu nekk jullit mais événement yi jullit bu jotee mhm. dañuy solu raaxaloo ci jullit gi di mhm. ñaan ay ndewenal wala ñuy taaja boon macha allah ah, suñu borom bi rek am doole macha allah yàlla rek ay yàlla ñu nekk ci wàccaay tabaski mel na tey ñi nga xamante ne borom kër yi nga xamante ne ñi am xar am nañ xar ñi nga xamante ne amuñu ña ngay dem di di dugg si naka su dul noonu di leb ay alalu jàmbur ah ba tey ngay dem fekk alalu jàmbur nga jël ko loolu lépp am na loolu lépp am na ndax àdduna bi ñu nekk képp ku fi nekk euh, bul ne man defuma lii rek keneen defu ko mhm. lépp a fi am jënd alalu sàcc yi moo ngi fi mhm. maanaam dem gis koo nga xamante ne dafa dem mu leer na ne xar mii da ko jël yi fi alalu jàmbur la mu ñëw xar mi war a jar tey mille mu ñëw jaayee la ko quinze mille kooku bu tabaskee amul tabaski baay bi la hmm. mu mel na tey dañu nekk ci événement boo nga xamante ne euh, yàlla tegu ci kenn lu mu mënul. Hmm. ku mën nga def waaye ku mënul nga xam ne mënuloo. Hmm. bañ na ko ba ne xar mu góor lañ la laaj. soo ko amul. <laughs> boo ko amul bay ba ci ginaar nga rendi ko wala nga peese ji ndawan mm-hmm. macha allah baay bi le waaw euh, soxna Fatou ñu ngi lay sant bu baax a baax ci eh, eh, thématique bi. Mm-hmm. ndax euh, dañu seetlu Kër Yaa Ummi. Mm-hmm. Euh, li tax mu riche. li tax seen 24 am doole. ay temu actualité lay teg. loo xam ne nit ñëpp ci teg baaraam. xew-xewu jamono dafa ànd ak jamono. parce que bu ñu bu ñu toogee tey. war waxtaan ci tabaski mhm. période tabaski moo jot te mhm. thème bu ñu fi andi rek dafay fekk ni jamono loolu la soxla loolu la laaj ku ci leeral doomu aadama yi mhm. kon seen 24 ci kaw ak ci kanam euh, waaye li may faral di wax rek euh, tabaski dafa am cosaan nit ñi baax na lu nekk balaa nga ciy dugg nga xam cosaanam soxna Faatu tabaski buñ ko waxee xel yëpp dafay dem ci yontu yàlla Ibrahim alayhi mhm. dem ci Ismaïl. Mhm. buñ ko waxee rek nit ñi foofu la concentré. Mhm. waaye am lu jiitu. ñun ay jullit lañu. ndax calendrier am. am calendrier juif. am calendrier catholique mooy géorgien. am calendrier musulman. calendrier musulman. mooy ñun jullit tabaski bi. dañ ko célébrer boobu di ñëw balaa calendrier musulman bi du ñëw. Mhm. dañ ko doon feete. Mhm. yeneen diine yi dañ ko doon feete. Mhm. waaye booba tuddul tabaski. tafaskaala tuddoon. booba tafaskaala. ñu ngi ko doon def fukki fan. ci zul zul hijja. bi ñu bi ñu amee suñu suñu calendrier. jullit yi bi ñu xoolee bis boobu. mu tombeek fukki fan. ak zul hijja. tafaskaala lu muy tekki mooy bisu feet. mooy bisu bànneex bisu mbégte. waaye booba diine islaam ñëwagul waaye yeneen calendrier ñu ngi fi woon. bi mu ñëwee diine islam bi mu ñëwee. mu xool ko parce que diine islaam dafa jël lépp dafa recycler lépp lu baax. si yeneen diine yi la jël mu xool ni jour boobu jouru feet la. waaye mu tombeek fukki fan si zul hijja tombeek fukki ak fukkeelu weer ak ñaar. ci atu jullit yi. ñu ne kon nañ ko jàpp buñ ko jàppee mu tombeek mooy bés bi nga xam ne moom la yonti yàlla Ibrahima defoon jëf jooju bi ñu ko xoolee. Mhm. ci calendrier calendrier moom. Mhm. calendrier jur jurhum yi. Mhm. mu tombeeg bés boobu. sallallahu alayhi wa sallam jël ko homologué ko. mu nekk fukki fan ci zulhijja fukkeelu weer ak ñaar. ci calendrier musulman bi. ñu jël ko nag def ko suñu feet. parce que boo nee tabaski. ñun ñu tabaski la xam. mais tafaskaa lañ ko doon wax. si làkku naar yi nga xam ne ñoom mooy jurum la. ñoom ñoo ko doon wax araab yi am na ñu ko tuddee arab yi ñu ngi ko tuddee Aïd el Ad lakka arab arab yi boo wax tabaski du ko xam mm-hmm. arab mm-hmm. boo jàkkaloo man ko tabaski du ko xam mm-hmm. boo demee si Maghreb bi si dëkku naar yi nekk biir Afrique ñoom ñooy wax Aïd el Kabir la ñu gën a dégg mooy bu mag bi Aïd si mooy fête fête bu mag bi Aïd el Kabir ko ñoom fête bu mag bi si pël yi ñu koy wax juul de layya parce que pël waxuma ñun ñun man pël waaye tabaski la ñu am maa ngi ñëw ci loolu mais pël yi dëggantaan parce que Afrique 52 états yi foofa dem am na ay pël tey jii pël bi nekk par exemple ci beneen dëkk boo ko waxee tabaski amaana du ko xam waaye boo ko waxee juul de laya ci aw say ñuy wax iddin laya lañ ko tuddee xamuñu tabaski si aw say mm-hmm. soo demee Burkina fii am na ñoo xam li ñuy war a sante yàlla mooy suñu moo boobu tabaski boobu ñu wax Afrique dëkk yu bëri ëpp ci dëkku Afrique tabaski la ñuy wax mm-hmm. li tax loolu tubaab bi bi mu ñëwee dafa jël Sénégal def ko baasam jël diine diine kii kat ku mu jël beneen diine da lay senegal Sénégal jëflanteeg yow su ko defee booy dem da ngay yóbbu feet boobu bu feet bi jot nga yóbbu tab nga yóbbu sa dëkk tabaski léegi ba tabaski bi siiw Tchad tabaski lay wax Gambie tabaski lay wax Guinée tabaski lay wax ñëpp tabaski lay wax mais ku si nekk am nga tur boo ko tuddee loolu mooy cosaanu tabaski waaye bu ñu nee tabaski xel lay dem si yonte yàlla Ibrahim ma nga xam ne la mu jëflante woon ak suñu borom ba yàlla daganal ko waaye dafa am nag dafa am loo xam ne gis-gis la mooy li nga ñëw léegi nii dafa dafa dem ba jël benn tournure boo xam ne mhm. euh, vraiment war nañ koo seetaat ndax dangay defe defee ni tabaski da nga si war a def loo munut. Mhm. te suñu borom tegul bakkan li mu munut. dëgg suñu borom lu mu teg nit fekk mu mën ko. Mhm. ndax da gis Sénégal ngay gis fête bi jot nit rey fukki xar si këram ci tax këram amul xar. dëgg loolu ana diine loolu ana yàlla si yow. bu fekkee parce que ki am na loo xam ne tey jii am na benn xisa dafa ma naqari dama koy nettali bërki démb soxna si neen dafa dugg marché ba pare. Mhm. jël pañam teg ko. Mhm. ndax mi ngi waajal tabaski ndugg ba teg pañam di jënd jimbo yi xool fekk jël pañe bi. waaye kooku bu jëlee pañe boobu dem war si bernde ay njabootam war si bernde borom këram war si lekk na xam ne loolu tooke la. du dara si sénégalais du dara si sénégalais parce que wacc kay tabaski bu la jaralee nga jaay sa diine. jaay sa ngor. jaay sa tarixa jaay sa lepp vraiment yow war nga xam war nga tok nga xol yaay kan ndax tabaski rek jar nako wala jaru ndax tabaski dafa bok suñu sunna la war nañ ko def waye nak def ko ak ni nga xamé ni vraiment mom mo conforme waxuma sax ak ak diine waye ak ak sa conscience. ndax waroo sàcc def ci tabaski bi jaru ko waroo ci def loo munul am na koo xam ne tey jii bu tabaski jeexee dafay daw làqatu ji ndax ay bor. dëgg la bu tabaski di jeex daw na làqatu ji ndax day leb jasinière valeur u quatre vingt mille leb xar valeur u deux cent mille lebal doomam lebal soxnaam. mais loolu lan moo ko fi jar. jaru ko léegi moo tax am dañuy dañ context bi ñu ko dugal. dafa mhm. dem ba mu mujj gi weddi sax da lay gaaw a yomb. Mhm. ndax da nga siy def loo xam ne da ngay xam ne lii dëgg. kon tabaski nañu bàyyi suñu xel. Mhm. xam ni fête la boo xam ne dañ ko war a bëggee. Mhm. fête la boo xam ne ku si jógee kontaan waaye warul nekk événement boo xam ne boo si jógee da ngay am naqar. Mhm. wala nga jóge si nga am ay bor. wala nga jóge si ngay làqatu wala nga jóge si di am ay problème police. parce que war na nekk loo xam ne vraiment lu giifal sa bopp la. dëgg la ndax fête la donc fête boobu nga xam ne dañu ko barkeelal. mu jóge su yontu yàlla Ibrahim. Mhm. war nañ ko mën a doxalee neneen. lu mhm. nii ma gis ëpp ci Sénégal yi di ko defee. dëgg la Fatou ma delloo la kàddu gi ba xaral lépp ci Sénégal yi ni ñu koy defee dëgg la baay bi le loolu moo fi am ndax tey euh, bokk na sax ci ñi nga xamante ne comme ni nga ko waxee léegi dañuy nekk ci koñ rey ñoom seen bopp reyal seen soxna seen taaw rey ka ca topp rey ka toppaat rey ka ca toppaat. juróom benn xar mën na daanu jëkk fukk or ka ki nga xamante ne moom nga dendal kër amul benn tay ponk li kuy lay doon ndimbalante ci boppam moo fi war a am mhm. ñi nga xamante ne ñoo tane euh, bàyyi bi lay ñi ñi amul dara ñu dimbale leen ndax néew di doole yu baari ci événement yi lay feeñ mhm. yu baree bari la partie majorité mhm. ci événement yi lay xeeñ feeñ nga am sa njaboot ñuy dem di jàngi di dikk wala ñuy liggéey di xuslu ci dara ngeen nekk seen sutura ba nga xamante ne yàlla mi dara tawul def na tabaski ñëw amoo xar moo rey ndax du ñëpp am ñaar fukki junni <laughs> du ñëpp am fanweeri junni am na ñuy dem di jënd ay xar ba cinq cent mille <laughs> tolluwul ci dëgg nekkul ci dëgg dañu nekk ci jamono joo nga xamante ne daanaka da nga naan ci mujjug jamono lañu nekk <laughs> kon tey nit ñu nekk war nañoo seet lu baax ñu di ko def ñi nga xamante ne ñoo ëpp doole néew ji doole ji ñu jël joxe te yàlla tax maa ngi gis ci internet bi benn waykat bu siiw duma tudd tëram la mu jiital ci ay xar kenn xamul lu mu toll ku indi sa piisu expresso boo ñëwee dinaa la jox jox la code boo xam ne bii mën nga cee woote ren ba déwén doo jot macha allah loolu nekk loo nga xamante ne dafa xaw a doy waar ndax bàyyi bile loo am yow tey boo man xam naa si yow mm-hmm. euh, jikko boo nga xamante ne yàggaguñu trop mm-hmm. ñu ngi bëgg a ami fan nag mm-hmm. bientôt un an mais xam naa si yow jikko boo nga xamante ne da ngay ndax tey leer na ma leeral yàlla ne barki Seydina Muhammad boo amoon ñetti xar doo ko rey sa kër te ñi la wër amuñu ko man xam naa ne boo amoon ñetti xar di ma jox jox <laughs> astu ndaxte kii raam di la bokk boo amee lu bari euh, macha allah dalay jox. gis nga Fatou. Mhm. ma may ma foofu tuuti ma leeral la leen. Mhm. loo xam ne dimbali naa si ay doomu aadama. Mhm. ndax dama siy waxtaan ak ñu bari. ma ni leen bu tabaski jotee da gis nit koo xam dana la man chômeur la wala aw ma doole. waaye bu tabaski jotee. dana xottil doomam. xottil jabaram. jënd xaru deux cent mille wala xaru cent cinquante mille. ma ko dajaleel loolu.

léegi nag tabaski bi kër gi fukki xar wala juróom benn xar bu fa deewee benn xar bu nekk minimum cent mille six cent mill a ngi noonu. dëgg la six cent mille boobu boo ko mënoon def kool kenn xale yi si kër gi nga investir ko ci moom. Mhm. sa à dire dëwën dana fekk dana mën a investir si keneen. dëgg la xar au lieu ñu def ko projet d'investissement. mais dañ koy def projet boo xam ne kër yi juróom benn xar ñoo fay tëdd te loolu xar yi rek la dep li togg xar yi ñëwagul li ñuy defaree feet yi ñëwagul donc kër gi mën na am na kër yoo xam ne man ni ma ko estimé un million cent deux millions trois millions dana fa denc tabaski ba pare am na ay chômeurs yu fa nekk dëgg la mais nañ leen créé loolu ñu jël ko def c'est-à-dire créer benn projet parce que projet du ndaw projet du cest à sénégalais entreprendre la ñu mënul mhm. euh, dama koy faral di répéter souvent soxna si dafa ñëw ma tonton damaa bëgg nga may ma ndax kër ga amul dépense lu ma togg ma ne ko kaay mu ñëw ma jox ko mille francs ni ko nag kaay moo la nooy def ñu ànd mën ko jënd benn paquetu ndox yu 750 yi mën ko nga jënd ko mën ko nga ñëw mu jëm ko ñëw man ko dama jënd fee glace usine glace mu jënd pën ndox glace mën nga def ko si toog fi di jaay actuellement restaurant la yore actuellement restaurant si gàtt restaurant la yore cest à il faut ñu jàngal leen entreprendre quelque chose tabaski bi pro dañ ko nañu def nii tey jii ku fi tabaski bu jeexee kër gu nekk war na mën a am benn benn mini entreprise bu fa judd. Mhm. parce que même bu dul si kër gi koñ bi kër gu nekk bu reyee ñaari xar. 3 mhm. millions 10 millions dee na. Mhm. buñ ko dajale woon danañu dimbali benn bilee saw mu mu entreprendre def dara. Mm-hmm. mais duñ ko def parce nañu bàyyi xel ci loolu xam ne tabaski sunna la bokk na si ñun mais bu mu la jaral danga nga tey jii ren war ren boo amulee xar déwén war nga mën a am xar mm-hmm. boo joxewulee xar déwén war nga mën a joxe xar lii mooy li nga xam ne sénégalais war bëgg naa ñu bàyyi ko xel lool mm-hmm. kër yaa ubbi nag lii lay jariñ dañuy waxtaan kenn ku nekk mën see jariñu dëgg la ndax ndax ndax ndax tabaski tey jii bokk na ci loo xam ni dama koy ñaan sénégalais yi pour ñu dimbalante suñu biir imaam ay doomu aadama ñooy dajale dajale dajale ba am jëndal ko xar moo xam ne mat na tabaski sëkk. Mhm. waaye imaam bu jëloon xar moom teg ko ñi fa julli ñëpp mu yéene leen ci tabaski. Mhm. ñooñu mu jiite ñëpp am nañu tabaski ci tabaskeem. Mhm. jarul ñuy rendi. danañu dimbali. dana dimbali cheptel bi dana wàññi. Euh, dana tax xar yi mën a sakkan. ndax léegi ñun senegal dem na nañu ba ñu dépendre si yeneen pays. si Tchad si Mauritanie ci si Mali pour ay xar parce que am suñu cheptel bi li xar yi fi nekk doyatuñu. Mhm. mais fekkonte ni jumaa bu nekk imam bi buy rendi yéene na ci ñi mu jiite vraiment danañu dimbali danañu dana wàññi coono doomu aadama yi ndax am na ñoo xam ne fi mu ne nii ñemewuñu wax seen boroom seen kër awma ma xaru tabaski tas na ay sëy xulooloo na ay nday ak baay tàqale na nday ak baay tàqale na doom ak baay déglu na def na ko ndax xaru aw ma xaru tabaski. Mhm. gis naa ci koo xam ne jënd na xar. cest à problème mooy nan la ko yóbboo këram ndax xam nañ jabete ko xam dafa ndaw mu am problème boobu vraiment ya man du am problème boobu ndax am na loo xam ni da koy da koy wax waaye da nga ciy ne nañu xam valeur tabaski waaye valeur tabaski euh, suñu valeur ñun moo ëpp moo solo ndax wala xadd karam naa banni aadama la yàlla wax respectante suñu biir di dimbalante su ma mënee jënd xar bu 500000 ma wuti xar bu 50000 wala bu 100000 400000 yi ma jox ko euh, Abbas mu dem wut si benn entreprise jaay ndox dëwoon mu mën a jëndal keneen xar. Mhm. loolu mooy loolu mooy dimbalante yàlla moo tax. dëgg la loolu mooy point wax mën na. loolu mooy dimbalante yàlla tam mbaa xam nga ne sëy yu bari dina rëng-rëngi bu tabaski paase. waaw waaw wér na. ndax fi mu toll nii dèjà euh, dañuy concurrence. ci hmm. da ngay gis ko xam ne bokkul ak nit kër sax koñ la bokk ak nit naan nam may xooleeg daf maa bañ daf maa def ni tabaski jot kooku jëkkëram man indil ko xar mu rëy kii jëkkëram indil ko xar mu ndaw concurrence bi commencé fu sa jëkkër ñëw nga ne teel ci kawam mbaa xam nga ne sa yu bari dina am problème après tabaski Fatou tout récemment est jar na ko tout récemment nii mhm. ko xam ne problème mu paasu Dakar la amoon mhm. paas pour dem Dakar mhm. mu am nu mu demee yàlla def si jàmm mu dem deux jours après ma dellu si. ñëw gis ko mu yore cheveux. Mhm. ma ne ko yow cheveux bi rafet na ba ñaar mun ma laa ko jëndee. Mhm. ci paasu Dakar manqué woon démb. Mhm. ma ne ko mais est-ce que di nga xalaat ma ne ko bërki dem ama woon paasu Dakar. mun ma mais tonton lii nii ma ko d'accord c'est bon ko mais. léegi yow cent cinquante mille yooyu maa mën ko déjà mënoon na la paasal ñaata fan nga dem Dakar jàngi mhm. mënoon na la sax dimbali parce mhm. que nit ñi parfois man du ma leen comprendre mhm. te loolu nag njàngat la boo xam ni foog ñu togg ko ci suuf mooy li ma wax sànq ñun toolu golo lañu xam golo bu suulee gerte gi dafa naan soo saxul ñor mosul li lekk mais xamuñu perspective d'avenir teg loo xam ni dëwante na jëriñ suñuy sët il faut ñu cultiver loolu si bopp doomu aadama yi tabaski bi tas na ay Mm-hmm. waaye nañu bàyyi xel mm-hmm. xaqiqa mm-hmm. bi kente sens tabaski bi dañ koy bàyyi xel du pour ñu féewaloo du pour ñuy xuloo du pour ñu niiroo du pour ñu ŋaayoo feet la pour ñu bëgg su demee nag li war a bëggal di andi tiraillement si ñaar ñuy sëy wala papa ak doom wala yaay ak doom. jaratu ko. dëgg la jaratu ko. dëgg la bàyyi bi la gis nga d'après li nga wax foofu noonu dama la si tegal leen rek d'après li nga wax ni ma ko dégg man ci sama bopp mooy liggéey denc yalwaan dunde mhm. day am. Mhm. day am mhm. parce que ka nga xamante ne mi ngi làq cent cinquante mille li mu jëndee cheveux. ba pare di ñaan paasu Dakar nekkuñu sax ci thème boobu mais jigéen dafa war a am dignité ak fulla ak fayda macha allah ndax yow mi nga xamante ne góor nga boo bokkoon ci yenn góor yi na def ba dégg amul paasu Dakar kooku tey bañul tey boo ko ne woon jël bunt bi mu ne la acca macha allah nekkuñu thème boobu mais dañuy xaw a leeral foofu rek moo tax euh, ma ne la tabaski gi dina dina indi ay rëng-rëngu xol waaye ñi nga xamante ne dañoo mën tay war di dimbale néew mm-hmm. néew di doon yow de saw pullo ardo bu ay xar tegoon sa loxo dinga ko distribuer mm-hmm. macha allah ndax du ma ne guleet te korite ga laa koy commencé tey amaana man ak samay jege laa kenn du ci jënd boisson mm-hmm. macha allah ay paquet nga ma tegaleel te xam nga ne loolu sa quelque chose da nga am xolu joxe te ni nga ma ko defal ni nga ko defal Astou Badiane ni nga ko defale keneen na keneen ak keneen et que pourtant buñ la ko joxoon pour nga joxe ko tey kesu boisson boo ci tàllal ci yàkkamti ci boutique ne mille francs du taxaw mais nag vraiment da nga am xolu joxe te maa ngi lay ñaanal yàlla boisson bii nga distribuer jox ko doomu aadama yi ñu bëgg ko lool ndax ku ne xam na ne tabaski macha allah boo ci àggee jàmm ba lekk sa waaj ba pare gazeuse nga ciy teg. Mhm. nga jël ay kees teg la ko di ko jox doomu aadama yi bu déwee ne yàlla na doon ay xar. bu déwee ne yàlla nañ jàpp ku nekk jàpp sa buum ommat mm. ñun de ñun kër waay eh, kër yaay ummi. maanaam jooyu ñu càmmiñ vraiment ku gërëmul nit nag doo gërëm yàlla mm, yaa ngi ci suñu wet di ñu jàppale macha allah ci sax xam di ñu jàppale sa dool ndax ma naan def bu tabaski masaana jot su ma defee sama première partie deuxième bi damay woo oustaz mais macha allah yaa ngi may farañ fàccal am sa benn fan sa nag muy sama grande sœur Ndeye Marème Seck bi ñu bi ñu defee émission euh, kii Saint-Valentin daf ma woo mu ne ma mais kii fu mu jàngee ma ne ko ñaanal ko yàlla macha allah xel mi yàlla di ko gën a sellal macha allah ñàkk laa am wóorul ñu ngi lay ñaanal daal li nga ñu jox li sa loxo yàlla na ko suñu borom bi barkeel macha allah bu ñu gisoon ñu mel na yow di distribuer la ñu am ñu di ci sédde kon euh, yaakaar naa ne ni maanaam ndó bi ma yàlla boolee ak yéen mhm. dama cee gën a santaat yàlla dëgg la te dañu ne saa yoo sante da ngay doon la in sakkatum la asidannakum la yàlla wax <coughs> dëgg la loo xam ni fii laa ko mokkale maa ngi ko doon jàng waaye fii laa ko mokkale mooy le partage mhm. mooy waxtaan ak doomu aadama yi mhm. Fatou yow da wax rek mais kenn gënu la ndax nit mën na yéwén ci poosam mën na yéwén ci alalam. waaye yéwén si daraja. moo yombul. yow Fatou da nga yéwén si darajaam. dëgg la ndax moom moo lay soññu sax fu ñu def émission. dëgg nga xam ni biir seen 24. Mhm. loolu moo fi am. Mhm. su ma ñëwee man mel na nen rek. Mhm. damay gàkk. dafay mel ni nga ko jël këriñ teg ko ci biir soow. dëgg la donc yéen yéen a baax. ma ñëw ngeen gis ma ko sañu ma def leneen sañu ma mel leneen lu baax. moo tax man damay sant NJ Ndiéguène. di sant Rachid. Mhm. waaye di la sant yow yow nag moom. Mhm. li ma wax la da ngaa sa daraja. Mhm. da nga ciy yiwén. te loolu moom cëru yàlla la. loolu du cëru nit cëru yàlla la ndax sa daraja. nga teg ko ci penc. loolu moom yombut. dëgg te loolu kenn mënu la ko fay. parce que émission Kër Yaa Ummi dama ko fi njëkk a wax. ma ne émission Kër Yaa Ummi. référence la. nit ñi dañu war a am référence. kon Sen 24 ubbi na buntu boo xam ne. sénégalais sénégalaise. na ngeen xam ne Kër Yaa Ummi référence la. nañ koy seetaan ndax boo ko waxoon naa ko boo ko seetaanee lu mu ndaw ndaw ndaw. di nga si jëlee xam-xam bu lay jariñ. di nga si jële xam-xam boo mën a téye sa kër. di nga si jëlee xam-xam boo mun a dundee ci mbedd mi. Mhm. di nga na barke soxna si moo ñu topp. dëgg la waaye yal na yàlla dolli. allahumma amiin yal na yàlla dolli. li mhm. wax ni. lii ñuy wax tabaski bi yal na yàlla di ko barkeel waaye nañ si bàyyi xel mhm. xam ni warul féewale mhm. dimbalante bi moo ci war a gën a bari dimbalante bi nag du ma am rey sama kër fukki xar mhm. jël benn pooj di ko yóbbul ki dëkkandoo bi te amul xar déedéet loolu dimbalante ndax loolu loolu ak loolu kenn xamul lu mu dimbalante bi mooy nga balaa nga koy may jën jàngal ko naka lay nappe lii mooy dimbal ndi tabaski loolu la jur ndax feet la ndax yonent yàlla ibrahim bi nga xam ne moom la ñu ko sallallahu alayhi wa sallam andi muy sunnaam ñu roy ko ba mu koy def jaayante digganteem ak boroomam la woon ndax dañ defe ni euh, rendi doom bi rek déedéet suñu borom moo doon xool ndax kii bëgg gi ma bëgg dëgg la dëgg la si moom ndax dëgg la ci moom waaye ba mu ko waxee doom ji la sa doom ji teg moo gën a neex mun nga suñu borom bu la waxee loolu papa man dama ciy bëgg nangu googu ñu nangu. moo la suñu borom andil leen xéewal boobu wan ni moom. lu ko neex lay def. dëgg la te mën na lépp nag. dëgg la faalu li maa yurid la wax waaye huwa allahu ala kulli shay'in xadir. Mhm. kon lu ko neex lay def waaye lépp moo ci am doole. dëgg la kon looloo tax mu dugal loolu. Mhm. ni nag sallallahu alayhi wa jël ko nga dugal ko ca diine ji. Mhm. kon ihsaan la rafetal la ak mbaax. ak nangu ak tawhid la war a def ci yow waaye warul def ci yow ngeen di ñiiroo ŋaayoo mhm. ndax jox nga ma xar bu ndaw mhm. aw ma jasinière déedéet mhm. loolu yàlla nañ ci yàlla musal kon tabas te mu tabaski bi ak la laay jënd du ma jënd pomme de terre di xolli liñ si bëgg liñ bëgg la koo xam ne bu ñu paree kër gi dañoo war a bégee gi ñëpp war a kontaan waaye doo si jóge sa xol di tàng wala nga jóge si di làqatu yàlla ci yàlla mu dool sutura la bu baax a baax macha allah bàyyi bi mu mel ne tey boo xamee ne sa jëkkër kurtu kurtu na ba indi xar boo amul soble amul pomme de terre sax xar la ca dàq mooy nga def ci cin mhm. sànni sa xorom muusal ba gras bi lii mhm. nga jël ko teg sa grillage la ko ko lan moo ko dàq sûrement mais balaa ngay am loola neex jël moutarde jël kaani rëbëje fii rëbëje fii te ku ne xam na ne ay ay ay magie yooyu yëpp baaxul ci santé loolu lépp baaxul ci santé ah ngeen xamee ko noonu te xam ne lii tabaski bi di farata ji muy tour deret bi comme ni ko bàyyi bi la wax yàpp bi ndawal gi sax dañ ne bu mënee jeex ci jour bi na si jeex waaye ñëw jëndoo pomme de terre awma lu ma jënd ki magi ba tax ngay fekk nit ndugg siyoom ba mu fees nga jël ko yóbbu ko ah. tey waxuma la dara mais boo ko demee defar ko sa boroom kër googu di ci lekk rek la mu lekk xamul lu mu doon bari na tey góor ñoo nga xamante ne dañu yor ay biir yuy metti biir yuy ballonné di jëm ci kaw ñu dañ leen jox ay tookee moo ne seen bi ay ay noobak te lekk lu la sama moroomu jigéen ñi dañu nekk ñoo nga xamante ne doyruwuñu su la sa jëkkër joxee téeméer jënd ci sa xaru keccax wala nga jënd yabooy jënd sa bisaat teg ko ci boo ñëwee mbaxal ko teg ko noonu. waaw liir du fen. fen de. tey su ma lekkee wàjj ba suur bu ma la rombee nga lekk sa yeboy bi buñ ku ci romb sa kenn nekki lii la lekk doylu dafa baax doylu dafa baax yow yaa ngi topp sa moroomu jigéen di ko xool mu dem jënd jëndam yu baax jënd ginaaram jënd lépp li nga xamante ne da koy soxla ci tabaski bi ndax xam na ne bu demee ba gën a jege tabaski bi mhm. du am jot marché bi mu ndugg ba pare taxaw di am lu muy jënd nga doxe ginnaaw jël siyoom loolu loolu tey bu ñu doxoon ba fekk joo nga xamante ne lu ne tag ñu dugal ko réseaux ah, sociaux yi kooku buñ ko jàppoon kii wax a ngi wax ka ca des na ngay filmé nga indi sa bopp gàcce goo xam ne xamoo foo koy waxee kon nit dafa war a doy lu waxantuma laaj ci génn yàlla daf ñu daf ñu mooñaale muñ mais ñun ñun ñoo ñoo doyluwul mm-hmm. ñoo doyluwul mais bu tabaski jotee yow yaa ngi sa waañ yaa ngi togg yaa ngi yekk lan ngay doyee jasineer amaana bu pare sax dangay ngay sonn soo wàjjalee sa jëkkër bu pare ba toggal ko toggal ci wetam xiimal ko mu lekk ngeen naan seen bu boisson nga sangu dem tëddi xale yi moom moom loolu am na barki démb benn jeeg ndaw toog sama we naan ndax xamoo kan moo fi make up ma ne ko make up bu <laughs> ne ma waaw ma ne ko make da nga am fooy dem danga am xew bu ne ma dee de pour julli gi ma ne ko noo xalaat. waaw ah, xalaat. yow amuloo xalaat. ma ne ko yow passé nga loolu mu ne ma ah passé sama morom di ko def ma ne ko loolu moo leen tardel du man dong bokkuma ci moo ko gën parce que yow bu fekkente ne da ngaa yor say doom la nga am lépp nga investir ko si ñoom ah xalaat loo def ci sa cin jour tabaski ak bu paasee. Hmm. ndax ku ne xam na ne ñu ngi dëgmal si nawet bi dara du am marché sa xel war naa xalaat leneen 5000 ba ngay may këbe ah, ah war nga kaa mën a jël def ko ci dara denc ko xalaat tabaski gi mais jël àdduna rek yann ko ne doo ko wàcce mm-hmm. loolu ku ko def te li ci gën a yéeme soxna Fatou xam nga mooy lan mm-hmm. jasnière bi nga jëndee trois cent mille mm-hmm. tabaski nga sol ko amaan doo ko solaat déedéet parce que doo ko gis millier boo ko dem pour sol ko dëgg la donc benn yoon koy sol denc ko dama koy wax gars yi dama ne leen armoire jigéen ñi boo demee ay boo ci man dama jég-jég ma génn ko bi kañ koy ma seet xam nga kii seet yére bi kañ làggee na ko sol dëgg la te lépp parce que loolu mooy yàq gi dëgg la te loolu dañ ci war a bàyyi xel tabaski nañu xam ne tabaski la. Mhm. encore une fois dañ koy répété. Mhm. jàmm la ak bëggee ak koñ bi ñu am cohésion. Mhm. mag ñu njëkk ñi daan defee tabaski kenn ku nekk dafay andi li mu am. bu ñu ngoonee ñëpp ku nekk yekk andi ci penc mi kenn du xam kii moo kii kii moo lii. wala ñu boole ko ci benn cin. jeex na tàkk dañ ko daan boole ba nga xam ni dootoo c'est-à-dire doo xam kan mooy kan yow xale bi doo xam sa papa am na xar wala amul xar. doo ko xam mais léegi nii. da sa doom sax mooy taxaw si bunt bi yaakaar yow da ngay jënd xar dootul ngir yàlla waaye da ngay koy jënd xar pour sa doom bañ a am gàcce wala pour sa jabar bañ a am gàcce te mhm. yàlla dafa ne namal am loolu yéen a lay fay mhm. yéene ji mooy sama doom a am gàcce wala sama jabar kon amoo mhm. la ndax li nga yéene mooy sa jabar kontaan yàlla du la fay loolu yàlla dafa la bëgg nga yéene ne naa tabaski mooy li nga wax sànq euh, mbir mi mooy nga tuur deret roy ci sunna sële Mm-hmm. loolu mooy tabaski bi. bu mm-hmm. buñ ko bëggee def fi ñu ko dugal ñun. Mm-hmm. macha allah dafay métti te eh, jigéen ñi naa si nettali benn xiisa ndax mm. fu ñu ne am na ku bon rek ku baax ngi ci wetam. dëgg la benn soxna soxna keroog bi ma koy nettali xiisa bi ñu jël pañe ndugg bi. dafa ne ma man de dem naa marché ma for kawas boo xam ne xaalis moo si nekk. kawasu mareyeur. nee na ma téye ko maa ngi wër ki ko moom waaye nee na ma gis benn paa ni muy jaabante ma foog ni kii moo ko moom. nee na ma ñu ni ko asalaamaaleykum góor gi nee na góor gi dafa ne ma puusal waay yow dafa nee na doo takk sama kaw nee na ma xam ne dafa gis nee na ma taxaw nee na ma taxaw foofu ba 11h30 maa ngi bàyyi xel góor gi rek ba mu dem ba toog ba mu jaaxle ma ñu ne ko góor gi pourtant maa ngi lay wax mais mun ko yow sama xaalis bi ma jaay sama mariage moo riir nga may lëmbe mun ko man de lii laa foo doon la ko laaj nee na góor gi këf ko ni ko moo doom yow foo dëkk xam nga loolu mënoon mhm. na jël xaalis bi dem waaw waaye dañ koo yar mhm. loolu buñ nañu fexe bañ koo ñàkk mhm. nañu fexe ba bañ koo ñàkk. Mhm. ndax lu mënoon na ko jël dem. te dara du ko ci fekk da koo for. Mhm. waaye dafa téye ko gis kii mu jaxasoo mu bàyyi ko mu si jànni ko. Mhm. mu topp ko topp ko ba mu giif. mu doog a jox ko alalam. góor gi si la ko jàppee tak cest li mu amaat ci góor gi moo ëpp loolu. dëgg la cest am na loo xam ne euh, fu may lay delloo kàddu gi mooy sëriñ bi dafa ni lu waaye fen ba am ko. su waxee dëgg si lay ëpp. dëgg la loo waxul dëgg ba ñu may la ko. soo waxoon dëgg am am triplé. dëgg la. boobu foofu laa lay kàddu gi Fatou. macha allah fay <laughs> waxtaan wi neex na neex na trop mais li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cër li mel na ne suñu li ñuy mayoon ci simili dañoo àgg ci càppaandaw gi macha allah man du ma noppi di la gërëm ah du ma noppi di la gërëm di la sant bàyyi bi leen ndax dangaa def lu raara raara raara raara ma ne damaa kontaan. te xam naa ne Astou it kontaan na macha allah ndax ku doon xalaat tey génne lu mat vingt mille def ko ci ay boissons. c'est quelque chose ah, nee nañ kii raam di la bokk ba amee lu bari dina la ah. si dimbale waaye bi lee ma jox la kàddu gi rek nga tàggu téléspectateurs yi ñu ngi sant ñëpp nag di di gërëm ñëpp wax mm-hmm. dëgg yàlla mm-hmm. di gërëm suñu bi mm-hmm. nga xam ne suñu doomu bopp la barke rasulaay ku la euh, yal na yàlla dolli xam-xam bi allahumma amin yal na yàlla dolli capacité yi amin yaa rabbi soxna Fatou. Mhm. nga ni ma kar ni ma bàyyi bileen maa ma ah ñu ne am nañ fi tawfeex man lan la nga ni ma Rachid daal mooy dem Canada formation. déggal lii énergie daal moo ko yóbbu bu ko daggal bii mu dem Canada macha allah amiin yaa rabbi borom na ko te dina ko def. macha allah. wallahi al azim ku baax la. dëgg la di wax énergie ñu ngi lay sant bu baax. ndax mhm. initiative bi seen 24 TV bi initiative la boo xam ni. Mhm. dimbali na. Mm-hmm. dimbali na dimbali na sénégalais yi. dëgg la waaye dimbali na ñun waa Thiès. dëgg la di la sant bu baax a baax soxna Fatou yow nag. li ma mm-hmm. wax rek. Mm-hmm. da ngaa si sa daraja. dëgg loolu nag sëñ Muniru moom lañ koy wax. njëgeen. Mm-hmm. ñaanalal ñu soxna Fatou mii. <laughs> waay te nañ ko ñaanal ñaan goo xam ne. Mm-hmm. Euh, ñaanu xaas daal lañ bëgg ci moom. ndax bëgg na la te am na yéene. dëgg la ngi sant bu baax a baax di wax ne yàlla na barke soxna si ñu tuddee euh, émission bi. Mm-hmm. muy yaa ummi topp ñu. amiin waaye di nuyu sama yaayu bopp mère Thiané. nga xam ne moom saa yu ma ñëwoon ma gis naa la. Mm-hmm. sama yaay maa ngi lay nuyu mm-hmm. ak mère miñal Ba mm-hmm. mère miñal Ba dama bëgg ngeen tek ko ba mu xamni ni ngi koy nuyu mère miñal Ba maa ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax di nuyu yéemu ñang di nuyu ayra di nuyu ñëpp rek ñom seyna bu ñom nday ñëpp maa ngi leen di nuyu sha allah assalamu alaykum wa rahmatullah soxna ma sha allah am mbégte ak contentement bu baax di partage ak yow plateau bi sha allah yow borom baax nga man sa ñaan personnellement xeebu wallahi azim sa ñaan xeebu ndax xam ne ku bëgg nga ku yéene nga yal yàlla wéral sa baat te yow bokk ak yow plateau bi daf ma neex lool ndax man personnellement dama ciy jëlee sax ah dama ciy jële expérience boo xam ne bi mooy loolu wallahi azim ah di la sant bu baax di la ñaanal yàlla tànk yi nga jóge sa kër ñëw ba fi yàlla na ko suñu borom bi def mu muy yiw ak ay ngëneel di nuyu sa yaay yooyu bu baax mère Thiané ak mère Mignel ñu ngi leen di nuyu bu baax seen tur macha allah booy na suñu ay <laughs> nopp ah, ndax baay bi leen mi nga xamante ne mu mu mu baax mu tedd mii macha allah ah di ziar soxna yi bu baax a baax di ñaan di sàkku ci yow nga ziaral ñu leen waaye nag macha allah dellu ziar rek suñu collègue bi Assou Badiane di la wax ne la tey moom plateau bi wéetal nga ñu mais nag sant yàlla incha allah rabi yàlla na soxla yëpp tinkeeku ba nga dellu siwaat macha allah di ziar sama yaay bu baax a baax a baax a baax yaxare ceeb yaay yi may xaatim gànna xaali mu mag xaali mu ndaw xaali mu ci raay bi ak xaali mi ci kër Alaaji Baro Njëgën macha allah Cissé ñaane mi ngi agsi bu baax a baax a baax a baax waaye nag du ma dem te nuyuma sama xarit sama rak sama doomu ndel na yar ci moom kooku mayu ma jën daf maa jàngal nu ñuy nappe bu ma toogee fii tey ñu dëpp ma caméra moom am sañ-sañu toog di wax macha allah grâce à si sa Amadou yal na sa jàmm yàgg di nuyu sama mag jooju Adja Abi Saw waaye fàttewuma Adja si sama rakk jooj sa si man rëkk te rëkkuma macha allah waaye bu ma nuyoo sama yaay ba pare damay nuyu macha allah mère Nogoy Diop depuis euh, Silma nga xamante ne macha allah ku fa jënd ku dugg rafet moo la ko jaay fourneau yeeg inde yi. macha allah andi ci sedd bi macha allah muy mère bu baax bëgg kër yaay ummi nag. bu ma seetaanee bu ñëwee day kontaan di sama xaritu yaay Jóob nuyu naa la mer nogay bu baax a baax a baax fàttewuma kenn waaye nag di nuyu di ziar macha allah am di Moustapha magi bas dafa saar ziar naa la bu baax a baax a baax moom mi nga xamante ne dafay sonn lool ci samay émission di dem nag ba YouTube di ko fa télécharger di ko seetaan di commentaire di di ma jox ay cangat may sangu di ma ñaanal yàlla macha allah bàyyi Seydina Jibril Sarr bàyyi xaadim bàyyi assu macha allah ziar naa la bu baax di la ñaanal yàlla tawféex foo bëgg a àggalal fa yàlla àggale yàlla bàyyi la ci suñu kanam nga di ñu gunge ba si kanam a kanam a kanam ziar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaye rawatina ki nga xamante ne moo nekkoon ci xarala nekk ci euh, équipe technique bi tonk muy Rachid bu en si njëgën macha allah xale bu tey. Mhm. bu yaru man li nga koy waxal nii. bis bu ko en eh, si joxoon daggaloon billet mu dem Canada. incha allah rek première billet bi man na koy jox. ndax ku ma bëgg la am fu mu ma teg. Ah, dina diisoog man. Ah. lu ma xam dina ma ko wax. te lu ma ko eh, digal loolu lay def lu ma ko tere mu bàyyi ko. yàlla na sa jàmm yàgg. Mhm. gama di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di ñaanal ñëpp tabaski jàmm naan ñëpp it mu baraka wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu